yi itam mooy masala miraas maqaam bi dafa am masala miraas maqaam maqaam bi sax comme ni ko xam ne ka yee rek lay dox moo tax lépp fu kaa xaala waaye nag masala masala miraas a ngi ci bañ al faradiya lim bu na taw bañ la tudd ji hakkan bañ a lii فريضة فرضي وهي فرضية متينة مدني مدنية حنيفة حنفي حنفية فريضة فرضية عبر قبلنا الحارث حارث ابن همام كي دوم همام قال من عرفت فوقنا ñàkkoon naa nelaw saata laylatin jëmmi guddi mm. ak guddi mm. xaali kadir jilbaab bu daa di ñuul ci muuraay mm. mu nekk guddi goo xam ne gu la xam yetti rabaab bu daa di dotteeku ci niir te doon taw guddi goo xam ne dafa lëndëm te day taw ñàkkaa nelaw dikkal ma ma ñàkkaa nelaw wala araka sobin aji soppu turi da joj dàqees na ko anil baabi walis buntu bi wa mun yete na toog ko di saddil ahbaab ci du muyu soppe yi muy ñàkkaa foog goo muy ñàkkaa nelaw goo xam ne bëri na ku am jaaxle sax te àggu ku am lu ko naqadi sax te àggu ca sama ñàkkaa nelaw googu fi mu àggoon waaw bëri ku am jaaxle sax te ñàkkaa nelawam àggu ca e bëri ku am lu ko naqadi sax te ñàkkaa nelawam àggu ca soppe bi nga xam ne soppeem dafa dàq na ko sori ma muy lu ko naqadee naqadi soppe bi nga xam ne ay soppeem yëpp ko jàmb jox ko gannaaw muy li ko jaaxal a jaaxal kooku sala saw bu ñàkkaa nelawam bi muy diis diis ko su ma ñàkkaa nelawam xàgg ñàkkaa nelawam su fay xàgg wala araqa sabbin du càggeen foog ak soppe turida boobu dàqeef na ko anil baabi walis bunt wa mu ni yatana toog ko bi fadlil ahbaab ci du muyu soppe yi falam tazal dajul al afkaaru xilaadi yahij na de jéqi xam mi sama njàqare su ko defee lu ne sama xel daj na ko may gën di jaaxle rek wayu jëm na ñii wëndeel wax mi sama deflewu kil wasaawisi ci jaax jaaxle yi sama xol mi jaxasoo lool sama xol mi jaxasoo lool sama xel mi jaxasoo lool xataa taman naytu ba mu mébét li madadi ma ngir métital ak laala ah naytu jàng ko xatte naa ak moom anur saqa bu warta galee fatma samiran aji ngoonaar minal ci way ba gis naa ne li ma nekkee na ma xelaat ne fi mu dee su ma xamoon borom xam-xam bu mën a wax lu am njëriñ mm-hmm. mu wéttile ci guddi gi du ma ko gëm mm-hmm. xataa taman na mu mi bët li matati maa ngir métti talag laala mm-hmm. ana it jànkuwante na ak moom anu sax mu wasa galee Fatma Sabiran aji ngoonaar minal fudala ci way gën li yu xattira ngir na mu gàttal tuula laylati hmm. yàggul sama guddi al layla gudaa ji tax nga hmm. guddi gi métti naan laylun aliyal laylatun layla hmm. faman xadat jeexut mun yëtee sama mébét wala amattu gëmmaluma muxlatee sama nagu bët xataa xaraa lu may fëgg na albaabu buntu bi xaari on aji fëgg ju xam ne la ko ñaal na ko sawtun baat xaasi on bu daaji toroxam hmm. li daal bi ko sax suma xel mi da teg hmm. foofu rek laa am ku fëgg buntu bi hmm. wax waxin wu suufe faman xabat jeexul mun yetti sama mébét wala ahmattu dëmma luma muxlati sama nagubat hatta qaraa lu may fëgg albaabu buntu bi qaari on aji fëgg joo xam ne lahoo ñaal na ko sawtun ba xaasi on ku daa ji toroxlu wa qultu ma wax fi nafsi ci sama xel sama bakkan ne laalla xarta tamanni xañ na njëmbatal mébét xat asmara meñña walay la xam de xëy na guddi cër xat asmara leer na moo ci xel ne ah xëy na ñu ngi bëgg a am. Mm. xëy na xeet la koy bëgg a mm. ilay jëm ci moom. Mm. ajalaan a daa gaaw. ma buur jëmali wa qultu ma ne ma dal di wax ne. man ana kan attaariqu moo daa ji fëgg al ana léegi. ma ne ana kan may wax buur di bay suñu waxtu bi. fa qaala mu ne ma garibun aji tumaranke yoo xam ne ajan na koo nëbb na ko allaylu guddi waxasiyahoo te dikkal ko asaylu yolnde wa yabtaxi te muy sàkku ali waa dalal muy sàkku ku ko dalal laa xëyr waaye du dulu mooy ku ko dalal wa idaa xarate bu jotee njël bu fekkee njël xaddama mu jiital asayra ba mu ne kii de kootu maraange ku fi amul kenn la guddi gi lëndëm na ba xamul fu muy xam ba fu muy xaw ba wéy xëtt baa ngee taw ba nit mënu fene su ne nag fu mu seeloo rek rek de la soxla waxtu wi dafay daf ganaaru dem doo ci xelaatante jox ko reer doo ci nit <laughs> ku fi amul kenn la de ci yoon la ne waaye la dem na ba xamul fu moo jaar ba dem te mu ngi taw ba ëtt minute muy te nag fu mu jamono bii rekk nag la soxla waaye jox reer moom du la ci waar te bu njël de jox ak jàmm rek mu génn dem nekk bari boobu ko nekk dala la ci wax xaribun aji tumaranke ajan na woo comme nëbb na ko àllaylu guddi gi waxas yee woo te dikkal ko ak sëylu yonde wi waya saxi te muy sàkk aliwaa sàkk mooy dalal laa xëyr waaye du lu mooy kiiwa way saa xara te bu jotee jël bu ñàggee sab ganaar xaddama mu jiital aseera la xaala haaris nee na falamma dalla ba tegtalee soin woo jeeneeram xala sam ci jantam kaddu gi bi mu tegtalee mbiram wanam te siiwal xon waanu woo adresseem ala sirri sirri yi ci mbootam leetaram léeg-léeg nit wane bi kàddum xamee lu mu wane ci moom alimtu booba laa xam ne anna Musa marata woon naka ngoonaar ak moom xun mun mànga la wa Musa arata foog lanteeg moom noo mun xéwal wala xam ne kii daal yaakaar naa ku toogum guddi ngeen di waxtaan yi jëriñ ngeen di dee jëlee bi bitti min mm. ci muuñ wa qultu ma ne ko udxuluha bi salaam dama mel ni ridwaan mm. mm. ¿eh? ¿ah? muy teru ku war a dugg àjjana ridwaan mooy kilifa ak malaaka yi liggéey àjjana waaw bu ñuy teeru seen gan ñi hmm. eh, naka sakal bay demee hmm. daanaka noonu hmm. bi salaam fa fatahtumuhu bi albaaba buntu bi tisaamin ci muñ wa qultu ma ne udxuluha ko bi salaamin ànd ak muñ fa daxala dal di tabbi saxsun jëmm joo ne xarxanaa lun xarxanaa lënkël na addahru jamono saadatahu taxawaayam ba juboon mel ni gurgo wa ballala te tooyal alxatru taw bi burdatuhu mbubam mu ne bi ma hubbee ku dugg ku dugg ndeysaan mag dikkal na ko ba taxawaay baa ngi mu ngi tawte ba yére yaa ngi fa hayyaa bu na yoo hee bi lisaanin ci lammin at bin wuraaji ñaw wa bayaanin ak biral hans bin guraaji neex mu neyoo neyoo hinu ni pir assalaamu aleykum wa rahmatullah neyoo hinu ni pir su ma sakkara topp mu sant ala talbiyati sawti ci xëyu baatam mu sant lool ne ma xaama daan nga saraxee ndindi waaye sarax su toll ni si nga def tey yaakaar naa mos la man mi leen su mm. ma fanaanoon ci ëtt bi yaakaaruma ne du ma ko nettali mm. kon ko ku xettali bakkan mm. moom nga doon façon wax yooyu moom la doon wax wan sadara bu ngantulu mi ne turuqi ci fëgg fii xëyri waxtu yi ci dul waxtu mu ne xanaa daal di la jéggulu ndax waxtu wi nii dul waxtu wi dem ci nit dafa fekk ne ku waxtu wi dem ci nit sax jaaduwul mu ne fa daanay ma jege ñal ko bil misbaahi ci làmp al muttaxiri bu daa ji tàkk wa taamal tuho ma settantal ko taamul al muntaqidi settantal ak aji gëstu mu ne fexe naa ba làmp bi jege ko nag ndég naa ko xool ba xam nu may war a fanaa dana ko am bi rek xamagoo lu mu naa ba bi jege ko mais nga xool di ko setantal ba xam kii ana nekkin bu la jiw fa alfaytuhu ma fekk ko sayxanaa muy suñu góor gi aba saydin ndeke abu saydin la bila raybin ci benn sikk hmm. wala rajmi xëybin du càggeen wax ci foof mooy jam kumpa jam xëy mooy wax ci du affaire kook ni mu ko waxee la demee fa ahlaltuhu ma wàcce ko mahal la man wàcce waaye koo xam ne azfarani tuufoo na ma bi xuswa talabi ci gën caay sori yi càkkuteef wa naqalani mu toxal ma min waqdil korabi tukkee ci dóor ak njàqare ila rawxi tarabi jëm ci mbégam siigarewu bi ma ko xoolee muy abu seydin dama gis ne bëgg-bëgg bu gën a rëy laa dama naan ko déedéet yow yow yàlla ma la doon indil man lay sama xewal waaw ak bi daal man man lay sama ni ko noon da ngaa def rek du ma ko yëg man kay xam naa danaa sant sant yu man la la yàlla doon indil rek waaw dañu mos a ànd ma aliya ma dem Tiwaawan fekk woo dañu ko yónni woon bañ fa bàyyee ko muy guddi su ñëw Cees su ñëwee si gàllu Cees bi oto bi ñu nekk mu ran kawalan benn benn benn client amul benn benn benn client amul wala ñun ñaareelu client lañ te boo guddi na garaan mun nañ fi ñu ñu jafanaan wax dëgg wóoru te gënu dëgg dëgg te yow dëkk boo nga xamati war naa am leen ko xam ma téléphoné ba yàqoo nekkoon na ci yàgg na ba ma xëyoo ma ne ko jamono bii may wax ak yow maa ngi jël maa ngi jël maa ngi jël ma demoon barab ñoom oto Kaolack lañ bëgg client amul te garab ni mu ne ma numéro Moussa Diop moom la bëgg nga wax ma ma xoo ko kër Moussa Diop man loolu dama koy wax Moussa yow doo ci doxatoo ci dara man dama koy wax Moussa doxatoo ci ma toog mu xoo ma téléphone mu xëy ko mu ne ma yaa ngi loo jëlee taxi ma ne ko waaw mu ne wax naa ko Moussa mu leen xaar ci tali boo jëlee taxi bi nga ne ko fa ñuy waroon nga ci yoonu Tiwaawan foofu la ba jëlee taxi ma xoo ko na ko jël naa ma jëlee taxi dama ko wax ne ko jël naa taxi maa ngi dem ma jox ma taxi ma jox ko mu tegtal ko gën waaye li may wax ba léegi àgguma ci nag dañoo dox ba ne ñu suñu ne ñu wàcc fekk kii soxla te boo seetee nag bañ koy doon dama ne ah wax dëgg yàlla de comme li jaaroon nañu gane ko fekk ko ci dëkk dafa naan di ko waral mu ne ma bu ngeen fanaan noonu garaas ma ko déggee du ma ji waaw mu ne su fekkoon yéen tey fanaan ngeen garaas ci dëkk bii su ma ko déggee du ma ji laa du ma ji du wax ci man loolu laa ko déggee du ma ji waaw ne su ngeen fanaanoon gara su ma rek bu ngeen ci fanaan wala ngeen fanaan ci yoon ci diggante kon man su ma ko déggee du ma ci rajo mooy këla joxoon affaire bu ñuul boobu keroog siyaare ko su affaire bu may jullee ana ko jox ma ko ma ñëwoon na siyaare loolu laa mu kon du ma julli loolu man liggéey man la ko yàlla rek summa axada topp mu xarab yas ko di tawat alay na coono bi mu ne ma sonn ma sonn waxatu man ma xarab fii kay ci naka la ayna xam nga boo amee kon nag man nag ma dugg ci jàmmalante bu amul xàpp nag waaw tigi tigi benn ram bokki ya mbolom dëkk ba bokki digale yi ci loolu nekk Faqaal mu ne ma abli ani wannal ma riixi sama lor faqad ana ba nii sonnal na ma tariixi sama yoon mu ne mu ne waaye man dama sonn commencé jàpp naa mu ne waaye mu ne ma tuuti man dama sonn dama sonn dama sonn léeg-léeg gan di ko soxla mais du ko mën ta wax léeg-léeg gan di ko soxla du ko mën ta wax am na ba di biir ñu jàmmalante mu ne boo ko nar a mu mm. daa aram daal tabarkalla bari ne moom boo ko waxee mm. <laughs> yaa ngi jàmm yàlla loolu yaa ngi jàmm yàlla boo ko nar a yàggal dëgg-dëgg xam si ñu foofu lay dund ak yow rek <laughs> waaw waaw waaw daaw loo xam ne nit a am jotam rek mm. mu ne mu xaar ren man dag ma tàmbale waaw seeram jàmm xolam ba tigi tigi ana dëgg sàngam mu ne ba aar ah, man nag dama sonn xanaa ma di sonn mu ne am li wax nii war nag ma riixee sama lor mooy muñal ma ji waxtaan dama sonn waaw muñal ma ji jàmbalante yi faqadara ma nii sonnal na ma tariixee sama yoon xaalis ne fa danantu ma jortu ko mustabtinan mu daa ji biiroo li saxa bi xiif ma yaakaar ne dafa xiif mustakasilan daa ji tayal li haada sababi ngir bile sabab loolu moo ko tax a tayal ci jàmmalante yi te booba wuti dara wéy te yëguñ ko woon xanaa ndefir rek moo fi nekk faa dartu hoo ma teewalal ko maa li nga xam dar def na ko teewalal li day fi ñaal gan al mufaaji guddaa ji bette fi leeli ci guddi addaa ji guddaa ji lëndëm te ndefir rek kam ndefir ndefir yi fi nekk wax a li mu koy ne ëpp na lool. Hmm. ay moo fi nekk ma jox ko ko. Hmm. ndax dama jàpp ne dafa xiif moo ko tee firee ko daal. Hmm. ci gannaaw bu mu ko wëree fu ñu ko yaatalee la. fan xabata mu dal di jàpp. inqibadal muxtasim jàpp aji kersawu. wa arada mu du moyu inradal basim du moyu aji far mu ne kii amul soxla baax na baax na baax waaw. mel ni kuy sag noonu mel ni daal nag amul na <laughs> mu ne fa surtout ma dal ci njortu bim naay lii ci terewum bañ gi bañ a lekk lu ko waral moom man xam ndax xebel la te ñàkk a wóolu la ndax bëgg a doxee lu ci moom waaye xam nga moom dama ne waa ji dafa xiir rek mm. waaye munu ca dugg waa foto ni merloo ma ku mm. óolu tibaa ko ay jikkoom mm. ni yombee soppee ko Abu Zaydin naqadi ma ci moom torop ndax koo jàmbat noo loro bañ dikk dalal la dala jox ñam nga ne soxlawul makka di ma toog xataa kittu ba ma jege uxlisu di talal la woo ñaar ko bil kalaami ji wax waa sama woote matt ko bi umatil malam ci dangati yetteem ba xaw naa koo ñëgasal ci wax ne ko ah dëgg dëgg de léegi mu fekkee ma jox la gërëm moo dul gënal de fa tabayana mu bidloo min lamahaati nadiri ci géndeeku samay bët maa li nga xam ne xaamara muur na xaasiri sama xelal bi mu seetloo sama cel ni melee ci la xamee ne sama xel mi kontaan te nekku ci li ma jox jëlu fa qaala mu ne ma yaa daaye fa siqati yow aji doxat ci dëgërlu bi rajal miqati ci ma mm-hmm. ci li nga xam ne ak kër sa war a tàng mu baala ka sa xel mi mm-hmm. mooy yi ngay xelaat mm-hmm. bàyyi ko suma diggante yow dafa am yum romb waaye dafa mel ni yow daal loo jaxasoo jaxasoo nit rek wóolu ko mu la ah. waaw suma diggante yow am na yum romb bàyyi yooyu sama kër su ma ñam nee du ma ko soxlawul du ma ko lekk sama kër sa kër a yem waaw hmm. sama kër ne su ma soxlawut lekk du ma lekk sama kër sa kër a yem nag seetla hmm. ku baax a baax hmm. yaa ba ngeen fa siqati yow aji doxaat ci bi alil miqati ci ñoon cofeel yow mi nga xam ne loo yàgg yàgg yàgg nit daal dafay mel ni wóolu ko ba jàpp ne yàgg boppam la yemale daf la tër an di bàyyi am ma li nga xam ne axtarta rotal nga ko balaka sa xel mi mm-hmm. yi ngay xelaat mm-hmm. bàyyi ko mm-hmm. wastamexte nga déglu ilay jëm ci man su fekkee réeroo amul ñàkk a waxtaan moo am déglu naa la waxtaan ak la abadit di la ñaan yow daal kenn du yow dëgg-dëgg xaalis ne fa qultu ma ne ko haati andil waxtaan yaa xaturra haati yow borom na xaati ah baax na mu ngaa xam daa day lu ne dee mën nga koo rafetal indi mu ne mën nga lu ne dee mën nga koo rafetal indi bismillah indi yow kii bi ay ne ma xaw a mel daal bu nim doxalee daal dëgg dëgg neexuma dara ba xaw naa waxat moom wax yoo neexut mu ne ma hee defal daal man naa am ma xamul sax waaye ñàkk waxtaan nag dafa bëri lu muy nañu waxtaan mu ne kaa ah, bañu ma waxtaan indi ma li ma bëgg wax fa abu zaydin ne ma yàllan xamal ne man bittu fanaan na albariha ta bii guddig bii gii fanaan xalifa iblasin daa ji tëqoo ñàkk guddig bii gi daal mbankare gi ma wana ji ya wat waasin te da aji diya ay jaax-jaaxle suma xel mi nag wa di jaxasoo lu ne dañ na ko ñàkk xaalin koo tatatatatat daal ak xel mu jaxasoo moo xam ne lu ne dañ na ko moom laa fanaan ne biig de waaw mbir tu fanaan na albaari xata biig xalifa iflaas daa ji sax koo ñàkk wana ji ya wat waas te da ay jaax-jaaxle falammaa qadaa ba jeexee allay ba fajee nax ba hoo haajoom bañ demee bu guddi jeex waxa war a tëngiisal mooy ngeccal asubu suba gi suba hoo ay jumam mooy ay biddiwam na gune waxa war a tën na ko asubu suba gi suba guddi gi xadaw su xëy naa ba bët setee daal damaa xëy waxtal israaq si jamono fenk jant bi jamono bi jant bi fenk ci la ila baatil aswaaq jëm ci leen ni jay jëmal ab marché ndax mooy loo kay soxla dama fanaan aw ma dara suba teel laa xëy jëmale marché ba mooy loo kay mooy loo soxla te amewul la njëg da jël amewul la marché bi da jaay ha sa kewee ko mën naa gaaw mën naa yéex kewee ko ko dara waaye yooyu ko lu koy mel it mën naa nekk moom nag turam yóbbu dara ndax nee na dafa fanaane ñaar bu kon amul lu war a jaay amul lu muy war a jaay ji sax waaye comme mooy kay soxla bi ma dem mu tasant yan daa gaa li say deewlu li say din ci rab yas wow dana gaa ndax man ngaa dem buntu boo amee dara feeñoo la aw hurrin wala gor yas maxu boobu dana mu tabe wala dajeeg nit mu xam ne loru nga mu dimbale wala astu ma gendeeku bi ay ca martaba tamran tàndarma joo xam ne xasina rafet na tox fi oo rangaleem waa sana ci rafetal ilee jël ci moom ma ci oo joono cooroon waaye xam nga marché itam doo bëri seetaan léegi da ngaa jël loo bëgg solo may doon ci marché bi gis bi tàndarma bi jaay taanu ma ji daal ñor gi ñor bu la ko kenn wax ni mu rafetee kéemaan jaaykat bi itam ni mu organisé njaayam daal ni mu ko tëralee ni mu silwisee bu la ko kenn wax tamran tàndarma joo xam ne xar xasuna rafet na tax si foo mooy ki koy jaay dafa organisé ni mu ko tëralee ci jaayukaay bi ba mu nekk lu sell lu dal xel waxatul waxtana te rafetal ilay jëm ci masifoo coroona mooy dafa ñor ñor bu rafet ba nga xam ne kuy taamu tàndarma ku xam tàndarma da nga ko taamu dum da ki fi toogoon na de waaw xam nga tàndarma fa jamaa mu boole al taqiqi ci dëggal safa ar rahiqi sell ak ndox mu sell wa kunuwal xaqiqi ak xonqaayu xaqiq set wecc mel ni ndox a bëri yëpp waaye xonk cërru mel ni gàncax gu ñuy àq yi safa wa bëri yëpp la husnu tafsir ni ko defaree moo tax dellu ci kon loolu ñor bi la tàndama ji mel noonu la gis ak ni mu bëggee tàndam wa qubala sewoo te nekk na ci njëxam li barum tig gàtt bu juree sowoo moom ñi njëkk a rafet ci xenaat bi moo tudd libaar dañ koy jël ñaareel di ko jël di ko di ko defar di ko lekk waaw ah, dara bu juree lu mel ni aw nag la gàtt soo biñ cee li waaw ñu ko lëggee ay di ko di yóbbu ci marché yi da ko jaay mu ne ñu gis kër gi tam mu jàkkaarloo tàndarma bi te tàndarma dafa gi toog na kalti bi si dem nañ di wurus al asfal bu ji jël wan jala te fi law ni ci melo al musaafar wala wuñ saafaraan alors mooy du rafet du ñoro ñor duñ denc denc wu si biir si biñ ko jaayee jàkkaarloo tekk bu xam ne itam ñu ngi ko togg togg bu rafet mu ngi nekk comme saafaraan foo tekk mi yus nii dana mu taggan ala sahi ci aji toggam bi lisaani tanahi ci lan ma ñu jotee woon ci taar tekki bi daal rafet gi ma rafet boo ko gisee ko si biir moom ba nga togg ba nga tajee ki nga togg doo ko yëg ba nga waxee ki mën naa togg doo te mosu la ci doo ko yëg de bu yëg tamit mu dana mu jubal raye mustari pexeem aji jandam walaw naqada doon de teewal na muhabbatal qalbi foofa maanaam ñu la yu xol fépp xol ku yi ci moom dëkk mi daal boo ci gisee luñ la wax ne moom lañ koy jaayee dana la ko jaral même da dagg ci sa xol bi day joxe man ci am sax dana la ko xaw a jaral yu sëyu bu dana mu jubar ya mu tërii fexeel aju jannam wala na xara doon teewal na mu xablatal xal bi ñu layo xol bi yi jamono bépp xol mu ne faasara ni xeew ma ak sa wëtu bànneexi bakkan bi askaniha kii buumam waas la ma ni jébbale ma alaymatu bëgg soow te la sultaniha jëm jëm buram gis nga yëfi sabab boo gisee nit ku bakkan dafa sonn bànneexu bakkan nag daal de mu tëhi lool ci tànn mu jaay tekk gi nit ku bakkan dafa sonn ma bakkanee ci soow ak ma bakkanee ci tànn ma ndox yooyu ñëw ma téye waatarat ni xew ma sahwatu bànneexu bakkan bi axtaani ay tiibu moom bànneexu bakkan xew ma fu ma ne ngor mënu ma ko tëj waa aslamat ni ma alhaymatu bëgg soow ila sultaani ay jëm ci nguuram fa baqiitu ma des axyara di gën a jëlam min rabbi ci bët waa ni ma ngal ma di bu mat boo xam ne bët xam ne bu gëlam dañoo dafa yomb gëlam ñaare bu génnee ci baax mi rek bu ko soree du xam fu mu ne aji a tax mu nekk madrabul masali ci gëlam ma gëlam trop waasala te gën a dem kal min sot bin ci soppe koo xam ne soppe am da koo dëgg te xel mi mën nga aji ci ku dul soppe ga kooku moo gën a nekk xam waaw waasala te gën a dem kal min sot bin ci soppe laa wujda dég koom yow su ne ni dama jotal ila naylil muraadi jëm ci xam lañ nam wala sa til ci siraati ak bànneexu lekk man xaama namaa dee ba mot ndax gannaaw faa jaay te am de xaama namaa dee ba mot de wala xadama dénd ku hin nag yu yu taam yoo nii dama sopp ala saabi ci dem maa xuuqatil ijtihaabi ànd ak lakkatu tàkka te xamu ne maa de gudduma ji moom ndax mënu ko mu yëg mënu ko romb moo tax mu gën su fekkoon moo ko mën a romb damaa am njëg kon dama jënd rek su fekkoon maa amul njëg dama ko mën a romb kon dama ko romb rek waaye xamal na maa de ba jënd ndax amul njëg xamal na maa de ba romb ko ndax mënu ko mu yëg lu war a jël ma di gën a bu baax parce que loolu la ñëwal moo tax ndax muy jëndee yoo si lu dama jotal ilaa zeyril muraadi jëm ci xam lañ wala zeri idrar ak bànneexu rek dafa jaay te man amu njëg kon namaa man xamu ko wala xadama den ndëggu yu tawoo nii dama topp ala saa bi ci dem maa xur xatil intiyaas ànd ak lakkatu tàkka tàkka ñu koy gis de borom koy ko mën a mungil te am mënu mu ko mungil kon namaa de borom koy xamu mu ne lakin li fi nekk hadani hadani mànga na ma alxaramu bëgg soow bëgg yàpp l'entretien bëgg soow la jijil wasawratoo ak lakkatam wasaxabu ak xiif waxawratoo ak lakkatam alaamante ñaa ci moom forlo ak kula ak min fépp suuf waa sania ak ma mel wir di ci bi ba dañ ci jekk waaye wa xiif ni wa xiif ak bëgg bi mu bëgg fii tàndarma ji tekki bi tax na ma ne lii daal moom dama ci xàpp su ne nu mu mën de baal ci rek danaa ko def fu ne man day buntu bu ne man day jàpp ne xewuma dara fu mu mën a xamee baax lakin li nekk hadaani màng na ma alqadamu bëgg soow wa dooratoo ak lakkatam wa sababu ak xiif halaan anta jaan ci mu forlu hat ku lahat mu sépp suuf waxtaan yaa ak ma doylo waxtaan yaa ak ma doylo noonu lu ci ci dox la ko ci def def fala ma asal dañu ma sahabata dalika nahaar dira boobale ba jëkk udd lii dayoor dal wi sama baag te an hari jëm ci yoon lii waye tama sama baag bi laa tar jama dem muy del bi bi bella si nag nag toy toy bëccëg bi yëpp daal ci dugg nga génn ci laa ne waaye dajee xuma dara dara dara dama mel ni ko yor baag rek kenn da ko yor ci teen te du indi tooy tooy sax bëccëg bi daal ci dugg a génn laa ne waaye dara dajee xuma wala mu asal dañu ma sahabata dalika nahaar ci diiru bëccëg booba ut lii dayoor dal wi sama baag ila nahaar jëm ci yolle yi waaye te moom bag bi laa tarjuma den muy dellu bi la tin ci toy toy wala tañ lu bu den muy bit di naqaaxul la tin mandik maru koon nañ dara daal dajeru mag moom ilaan saxa ba jeng asam su jant bi del xoroo bi jëm ci sax ci loolu lañ nekk ba nga xam ne jant baa ngee sotti wadama fatte ndoxaadi a nafsu bakkan neen loxoo bi ngir sonn fekk coono yi ma xeen loo tax na may sama kàttan jeex faruxtu ma gont bi kabidin ci rek xarraa bu daa ji tàng ma bàyyi ko ci marché bi ak xol bu tat mooy mooy tagoor bu tat wasanaytu ma wëññeeku uqaddimu di jiite rijan ab tànk waa xiru may yéexi uxraa beneen tànk bu ko defee ma am ak déngi déngi ci suma yeboo dem dana ci suba ba dara doxu suma yeboo dem wala day naa toore ndax dara wéyu la léegi léegi léegi demal toog bu xaddi mu danaa ci bëri de ci ne ci man ndax ci suba dee man waa xiru maa ngi dox waa xondu ci biir dengi istibetel xaabala ni jàkkaarloo nag man seexun ak góor ya te awahu kub dana mu binni ahata sakkalaani binni aji ñàkk doom waaye naa ko ñaari bëtam temmu laa ne ñu ngay mu tongay bu fekkee nu góor jàkkaarloo man jooy lool mel ni doomu faatu maa dënn bii rek ba yaa ngi sotti rongay kaman soxala ni soxla luma maa li nga xam ne man fii man ci moom min day fii bi ci jàngoroy tëll te mooy xiif wal xawaa ak féex ak biir al musib bu daa ji ruyal an taati mudaxalati wali jànkoante duggoog moom fa tamee ak xamen fi muxaatalati ci muru jëg moom xiif naa trop waaye la may xiif xiif nag terewul ba ma ko gisee muy jooy fexe naa ba looy ba am ci moom waaw comment soxala nii soxlaa lut ma en tant que mu daxalati wala jàmpante du góor moom wa tamay ak xamen fi mu xaatalati ci wuru janteeg moom maa li nga xam ne ana ana man fii maa ngi ci loolu min day si ci jàngoroy til la te mooy xiif wal xawaa ak féex ak biir al musib bu daa ji ruyal fa qultu ma wax la ñaar ko ci la nin yaa asa yow mi inna li bukaayika ñaal na sa jooy sa jooy sirran mbuut mu ne yow mi ni nga doyee ma jooyu la faye talot la jooy fere lépp ne li nga jooy kooku wax na dina xam ne waraa taxarruqika nekk na ci gannaaw sa lakkatu gi la sarran ay mag te dënn bi ni muy rëccee nii nga di himmat la ko jur ana lu xew faatali ani xamal ma ala burahaika ci sa tatak lor wattaxid nii te nga jàpp ma min nusahaika ma bokk ñi lay laye bi dama bëgg nga waxal ma li la jaaxal li la gaar te nga rafet ci man jot jàpp ne man taxawayu fekk rek lay taxaw ci sa bi dama nga wax ma li la daal te nga rafet ci man jot jàpp ne man mii taxawaayu defar rek lay def ci yow li ani xamal ma xanaa burahayi ke ci sa tatanloo wa taxit ni te nga jàpp ma min nu sahayi kama bokk ci ñin lay fa innaka naka yow sa tajidu xese ngay fekk min nii ci man sabban aji garbal asiyan ku aji garbal aw awnan walla aji dimbale mu war si yenn ku daa ji dimbalante ndax benn muy lu xam ne man mën naa koo régler ba mu ah, ma régler ko ba mu sotti walla mënuma koo régler waaye mën naa ca dara ah ma def ca ma ca ma mu doon gën ñàkk ko caa dem ko loolu dafay wax ak kam war ma loolu laa ko fa qaala mu ne ma wallahi gin naa ci yàlla maa sa awuhi de sama bindi mi nay seen de ngir dund faata boo faata du dama yàqule dara du dama bëgg ma amul mu ma faatu yooyu du loolu min darin dur ngir jamono istaata bu jàggate naa dur dal dama joti ci suma àddina déedéet bal li fi nekk leen xiraat nel mi ngir jeex a xam-xam wa duruusi yi ak rafet xam-xam muy masdar darasa wala wa duruusi yi ak jeex ak ay darsu muy jamono darsi li may jooy musiba wi ëllëg la mooy nit ñi niñ joxe xam-xam gannaaw ñi war a jàng jàngatuñ ñi war a jàngale jàngale wuñ wa ufool aqmari yi ak suux ak ay weeram wasu moosi yi ak jantam ba loolu tax na liñ ci xamoon ñun jullit ñi bëri nañu ñu ñu ci rëcc léegi nag suy dëkk di dëkk di rëcc bu fi neexaat bu fi neexaatul nag la yonent bi waxoon mooy am mu ne borom bi tabaraka wa du jële xam-xam du nangoo xam-xam ci rocce ko ci dënn yi mu nekk mu ne bu ñu waxee xam-xam dana fi jógee du ci nun la fay jógee waaye nag borom xam-xam bu leen nit ñi de sàggane ku dem yóbbu loo xam te bàyyewu ko kenn ku dem yóbbu loo xam te bàyyewu ko kenn ku dem yóbbu loo xam te da bàyyewu ko kenn bañ jeex ne way nama yaqbadoo bi mawti ahli yaqbadoo mawti ahli te toppante man da ñàkk ñu jiital kuréel mu réeral nit ñi tëb xam nga kuur bee fekk buy man sama bopp jaaxal na ma bu duut man ku ma war a bëgg mu mucc man na ko fee fekk lu ma tax di jooy rek xel mi waaw ne ko lu ma tax di jooy Abu Zayd ne fa qultu ma ne ko waaw wa ayu haadisatin ana ban xew na jabat moo génn ana lu xew wa qadiyatin ana ban xatte istaajamat moo lëmu ana lu gagloo gay hatta haajat ba mu jeexee la ka ñi ala sa fa njàqare ala fokk wala jiitu nañ ba tax la ñooy jéem kon ñu jàng loolu ko jooyi du affaire dafa am dama ñàkk wala dara dama jot ci sama àddina waaye ma gis daal nit ñi ñàkkee ko xam-xam moo ma tax di jooy ndax su fekkee man fekk na ma fi kon sama xalal ku wóoruma waaw su ma fi fekkul fekk fi koo xam ne war naa koo ambal yërmande ah mbiram baax na ko beneen yoon dama mu ne man dafa lu ma bëgg mu jafe ma eh wala dara daf ma dal waaye xam-xam ki jeex daal moo ma jaaxal loolu nag ku dem bay ko wax dafa am lu ko ko taxaw Abu ne ma ne ko ma loolu lu ko taxaw mu ne faabra sa mu daal di génne ruqaatan ak am mos lu këyit min kummihi ci loxol mbubbam mu mu nuxu nuxu ci poos bi seen loxoy mbubb yi daraan am moo tax mu nuxu nuxu ci poos bi génne benn këyit waa xasama mu gin bi abihi ci bàyyam bu ummihi ak yaayam mu ne këyit bi de dee barki suma bàyyee suma yaay laqad ansalaha wàcce ko bi alamil mahabiri madarisi ci kilifaay jàngu yi faam taasoo jàqe wu ñu anil alami ci mandarga yi ak dawaari fi yu daway ràpp mu ne këyit wi de di képp kuñ ne fay jàngale xam-xam mu ne ab sëñ daara mu yaa ustaas wan naa ko ko waaye kenn mënu ko leeral seen bu baax a baax watan sax a tudduloona lahaa ñaal këyit bi axbaaral mahabiri foo dee daa fa xarisoo ñulu wala xara sukkaanil maqabir du caggeen lu ak way dëkki bàmmeel ñun fi daan ñore ay bindkat ay conférencier lañ ay boromi téere lañ wan naa leen ko waaye da laaj leen ko tanewul laaj ko waa kër gu maggale këyit bi daal laajte naa ko ko war a laaj laaj naa leen ko waaye kenn xamu ko ci su fekkee ñiñ war a laaj ñoo ko xamut kon ñi kon ñi ñu war seetloo kon kon li ñu war da laaj waxi na su ci xam-xam la nag war koo soxla jamono bi mu um bu ñëpp kon bu ñu kon moo tax may dee seetlu bu baax laqad ansalaha wàcce ko bi alaamil madaris ci alami jàngu yi fam taso jàqe wuñu anil alami ci mandarga yi ak dawaare fii da wéyra wasan sa xatudu loona laa ñaal kayit al mahabiri foode yi mexbara yi mooy foode yi daa yi fa xariso ñulu wala xarasa sukkaan al maqabir bu caggin lu ak way dëkki bàmmeel kon kenn mënu ko tontu abu seyri ne ko xultu ma ne ko ari nii haa wan ma ko ah comme danga koy wax wan ko falaan la ni xëy na man suux ni ma jëriñ fi yaa jëm yow xam nga wax dëgg ak see goo wan ma ko comme da wane te man gisuguma ko ak see goo woon wan ma kañ la sax man laa mën a ton fa qaala ma ma ma tasori doo fil maraami ci càkkutéef ma lu ñuy wane de ku ne faa ko bëgg a gis de mu ne lu ñuy wane ku ne faa ko bëgg de loolu la ma ma ma tasori doo fil maraami ci càkkutéef war na lu ne dañ koy wane luñ ne dañ koy wane ku ne dama ko bëgg a ji wax dëgg pour baram yetin bëri na saan sax min xëyri ramin tukkee ji ko duul daana ji ko duul sànni ka te mën nga for sax ramitun min xëyri ram muy nit dama dem loo xam ne nguur la waaye mënoo rek maa ko ji da for rek si lay koy waxee saan la waaye daan naa sànni ko jëm la waaye daan naa jëmu waaw loolu la nit ki dem na loo xam ne nguur la la waaye duul mënoo rek moo jaag da pour moom lii daal ku mu xam te ku mu kaa bi mu taa xam xam pour baram yetin bëri na saan min xëyri raamin tukkee ci guduma aji sànni aboo seydi ne suma naawala nii haa topp mu jottali ma këyit ba mu jox ma këyit ba fayitaa ci mbetteel almaktubu la ñu bind bi haa ca këyit ba la ma fekk ñu bind ke mooy ayuha al aalimu alfaqihu alladi faaqa sakaan fa ma lahu min sabiyi aftinaa fi qadiyatin hada hana kullu qaadin wa hada kullu faqihi rajulun maata an axin muslimin hurrin taqiyin min ummihi wa abihi wa lahu zawjatun laha ayyuha alxibru axun xaalisun bila tamwihi fa hawat fardaha wa haasa abuha ma tabaqa bil irsi duna axihi fasqina bil jawaabi amma sa'alna wa huwa nafsun la xulfa yujadu fihi loolu mooy jax bi di miraas la dégg ayyuhal aalim ay yow aji xam ji yow mii borom xam-xam alfaqiihu kuraaji dégg fiq alladi ki nga xam ne faaxa kowe na musakaan ci ñaw famaa la woo ñaalu ko min sobiin jannaa ji niru yow mi gën a ñaw ñëpp aftinaa hubbee ñu defal ñu fatwa leeralal ñu fi qadiyatin cib xattee boo xam ne haada mooy na an ha wëlis ko kullu qaadin bépp qaadi waxaara te gëlëm ci kullu faqir bépp fiq dafa mu gaar te mel ni xudaatul asri ak fuqaaul asri te na leen yow lañ bëgg nga leeral aftinaahu beeñu fi qadiyatin ci xatte boo xam haada njuy na an ha wëlis ko kullu qaadin bépp qaadi dafa mel ni xudaatul asri mënuñu ko waxaala te gëlëm ci kullu faqir bépp borom xam-xam fiq loolu lum de lay wax mooy rajulun ak ak góor la li may wax ak ak góor la ee maata koo xam ne dee na ak nit la ku dee xan axin walit mbokk moo góor lañ wax de muslimin ku dee jullit bu doon xéefër ñu ne xéefër ak jullit duñ doon nante waaye mbokk mi jullit la de xurin ku de gor te itam gor la de bu doon jàmm ñu ne war te doon na moo tax te xiin ku daa ji ragal yàlla te itam ko ragal yàlla la su doon kàccoo ñu ne nga ko rey ci tey waaye loolu de amul dafa dee bàyyi benn mbokk bu góor mbokk ndey bàyyi mbokk mi gor la jullit la benn sababu njubadi bu koy war a teer doon na amul min ummihi ci ndeer waa bii ak bàyyam muy mbokk mu mbokk ndey mun waa la dee bàyyi loolu rajulun ak góor la maata góor dee mu xanaa walit mbokk mu góor muslimin ku dee jullit hurrin ku dee góor taqiyin ku daa ji ragal min ummihi ci ndeem waa ak bàyyam wala woote ñaxal na ko moom kooku dee na sawjatun jabar léegi nag moom mi dee mu ngeeg jabar laa ñaxal na jabar jooju nag ayu hibru yow góore jile axun mbokk xaalisun mu daa ji sell bila tamwiil ci lu dul jabar ji nag am na mbokk sell bu baax mu ne moom mi dee am na mu góor mu mbokkal dee bàyyi moo xam ne wax dëgg gor la jullit la te sababu ñu wari buy xañe doon na amu ci moom mu am jabar jabar ji am mbokk sell bu baax a baax wala woo ñaan na ko saw jëtun jabar lahaa jabar juuj ñaxal na ko axun mbokk xaalisun mu daa ji sell bilaa tambiiri ci lu naxa aywa alhibru yow jële am na jabar jabar ji am mbokk moom mu am mbokk dee xam loolu la waxaale fa xawat mu làq moom jabar ji fardaha sumunam léegi nag jabar sumun la doon nee na sumun ak waxaasa làq axuha mbokkam jabar ji ma tabaqa la def mu làqee ko bil irsi ci doon doona axi walin mbokkam ki dee mu ne dafa dee xam mbokk mu góor mu mbokkat ndeeg bàyyi moo xam ne góor la jullit la ku la mu am jabar jabar ji xam mbokk léegi nag bi koy miraas ñu jabar sumun la yàqu léegi jabar bu jëlee sumu ni def mbokkam jabar a koy moom mais mbokkam ki dee du ko moom te ñu miraas mu dëppoo sëriñ la mooy lii la lay fuqaaye xamuñ ko de lam bi loolu la ñu de xam nga wax mbokkam ki dee wax na ni mbokkee ki dee waaye mbokkam jabar ji waxul ni mbokkee jabar ji waroon na ko waxale delloo xam nga wax mbokkam ki dee wax na ni mbokk ki dee ne min ummi yi waa bii waaye bu ñu wax mbokkam jabar ji nag waxoon ni mbokk ak jabar ji moom foofu loolu am lëbës lëbës la ci biir seetloo ko baax a baax boo xam ne ñi yëngatu ci xam-xam su ñu amoon yeewute rek bala ñoo bala ñoo jox gannaaw laaj bi dañ laaj loolu moom seetloo ko ndax it nag munaasara dafa war laaj bi dafa war a leer lool lool lool lool lool waaw wa fi su'aali dabtu wa taxsiinu wa fi jawaabi tibqu wa tabiinu ñooy ànd ah, laaj bi dañ koy laaj laaj ba dañ koy topp topp ba xam ne nii la su ko defee nag kii tontu nag door a jëm door a engagé bi loolu la affaire bi laaj waaw ah, seetlu ko parce que boo koy def buñ la bi da koy topp ba kii ko laaj ba xam ne lii la laaj su ko defee nga doog engagé xam li ngay tontu lan la mais ji bokkam nu bokki moom muy mbir yi delloo bu baax a baax waroon nañu ko laajte mu ne faawat mu laq moom ndaw si fardaha sumuna waxaasa laq axuha bokkam jabal ma tabaqa li te it mu ko laqee bil irti ci doon doona ak yi mi moom mi dee mooy lii de muutal ay fas bi naa saafaraaju bil jawaab ci tontu am naa ci li nga xam ne saar naa laaj nañu ko léegi nag feebara bi nekk faj bi yëpp mooy tontu laaj bi rek feebar bi réer la ah li koy faj rek mooy xamal ko am mbir mi daal ku ko waxee lañ doon moom nafsun yàlla tey nag miras mu dëppoo ak sëriñ la kitaab ak sunna laaxul ba déet wute yi ci déet ko fekk fii ci moom fuqaay déet wute yi li muy bari bari miras bi amul wute la wax abu seyrin yor na këyit abu seyrin ne fala maa xarat ba ma jàngee sienraa wéyam ba ma jàngee wéy bi ci këyit bi wala maxtuma gendee ko sirraa bóotam settantal ko ba xam maanaam yi qultu wax naa la wa ñaal ko dama ko eh sa xattaroon nga al xabiri ci aji bi aji yow nag ba nga dajeeguloon ko xam ay bul ni kenn xam ko li nga xam na ko xam nga ñoo dañuy daje ko doon koo xam rek waaye du kenn koo xam tey daje nga koo xam faqat taroon nga alal xabiri jaaja xam jaaja waxatat da wàcce nga hen dabni bajdatiha ba aji xamam ibnu bajdatil ardi mooy ku xam suuf lool lool lool lool ki ko jox nii na ko te xam-xam lu li ngay def xam naa ko lool illaa ni ndare man nag mu tori mu xaasa aji takk ji bal aji lakk ji bal mu torun aji lor ba lay mu toluma yi dala ko illaa ni ndare mu tori mu aji lakk ji bal jël la mooy dama xiif mutarun aji lorul laa inaa saa yi jëm ci reer faabir na teral mas waaye sama sax waay wastamiate nga déglu fat waaye sama gubbe addina nag dimbalante moo fi foo dem xam-xam ak ñoo bokk di doxal mbir subaana boo soxlaa xam-xam nangu la joxe alal jox ma ma rek soo ma joxee reer ma soo ma ma leeralal ma loolu soo agrim teral mas waaye sama sama taxawaay mooy joxoon rek ba talatoo su ma tamit ak topp nga déglu far waaye sama buble fa qaala mu ne ma waaw laqad ansafta sellal nga filistiraati ci sarta comme soxla nañ ci yow dara nga wax nañ koy mane loolu jaadu na wa tajaabayta te itam dandu nga xan istidaade wala jéggi dayo te it wax dëgg jafeloo ndax mbokku jullit bu xiiwee sax nga dem mbokku jullit war nga koo mën a jox lekk lu dul dara ah li nga laaj nii man waroon naa la koo mën a si kaw sara nga fu ñuy mujj nag waaye demal ba xam fu ñuy mujj rek wata jaa fay ta te nga dandu handi si taari wali jéggi de fasir doxal maye ànd ak man mar maye jëm ci suma wàccu waay tafara ngir na nga tuuboo ma ci li nga xam ne taf tax yi danga ko sax watam xali ba am nga jàllar bi ko ma yem baxi mu xelle mu ne ma waaye xam nga fii mbedd mi la dara du fi fajo nañ àgg ci kër ga suñu àggee ci li nga bëgg ma taxawu la mu sotti fi mbedd mi la kon nañ àgg kër ga parce que doxal may ànd man ila mar may jëm ci sama wàccuwaay léegi dañuy àgg kër ga ndax mbedd mi fii dara duñ fajoo li tax fara ngir na nga tuuboo maa ci li nga xam ne taf tax yi ko sàkku ndax li nga bëgg nañ mën koo taxawu foofa watan xalifa ak nga jàllar be comment yem bëgg ni ni ak itam mbir mi demee na mën a rafetee xaala bu seydi nee na fasaa tuuma ànd ak moom ila sarawu jëm ci digg réew mu ne ma ànd ak mm-hmm. ñu dem ci itam kama kama ni allah yàlla faata xala nii mu tàbbal ma baytan néeg ahraje bu gën a mm-hmm. min a tabuuti ci ker waaw xana te a doxaate min baytin am ka boot néegu jarba mm-hmm. dem baa ngi jëkk ngeen néeg su ko a tuuti te gën koo solo inna aw xanal bu yuuti la baytun am dana jàng ci alxuraan mooy néegi néegam jargoñ moo ci gën a ñàkk solo xam nga man da fekk ngaraw man da fekk naaj man da fekk taw moomu ci lenn te loolu ko jargoñ lëggéenam lëggéenam yooyu man da fekk lenn man da fekk ngalaw man da fekk naaj man da fekk taw alxuraan ni muy waxee moom rek la wa inna awhana al buyuti la baytu naan ka boot mooy néeg yëpp néegam jar ko ci moo ci gën a ñàkk doole néeg boobu man da fekk naaj man da fekk ngelaw man da fekk taw xam nga ne benn néeg gënu ko ñàkk solo dégg bu baax a baax fan yii ki ñëw coow coow ci réew mi noonu naan dafa wax ci alquran dafa wax ci alquran man daal mbiram moom daal mooy xawul mbiram daal dama dem jaamal démb dégg ñu ne dafa wax ne yonent bi dafa doon jàng waaye léegi na wax ku doon sëriñam rek na wax ku ko doon jàngal rek kay comme da doon jàng kay boo xamee nit ki da doon jàng ba wóolu ji war nga mën a wax déw ko doon jàngal na wax ku ko doon jàngal tëlum ku baax a baax tëlum ku baax a baax te man li ma jaaxal daal dëgg dëgg dëgg li ma jaaxal moo di moom xanaa xel mu rafet mu am dégg ca lay mën a toppee wax ba man koo critiquer ne nangam moo dëppoog sawab nangam dëppoogu dëg sawa dama foog ne nit buy def loolu xel mu rafet ci lay muy jumtukaay bi muy amee dégg ci li muy def naq du doon koo man ndax foogu leen loolu ah léegi xel mu mat moomu ku ko def ci moom ah kon yàlla ko gën a mat ba jox ko xel mu mat moomu selloo ku baax a baax mu doon ma ko xam ne fa mu jógee dara wàññeeku fuufa kon matam gi seenul mat ak yàlla gi selloo ku baax a baax te moo nangu ne jaam na rek selloo ku baax bu dee loo xamul da ngay ne fenn xuma sama bi seenu lu ko waaye lu xuma la taalamoon sama bi yu bëri lu xuma sama bi seenu lu def ci baax def ci baax def ci baax def ci baax de xam ne xuma sama bi yow seenu lu def ci baax de loolu bu baax a baax bu baax de su defee loo xam ne sama naa tuuti ah te nga xam ne ak bëj rek la yusalu amma yefaalu wum yusalu dafa tolloo wala kenn kenn kenn bam naan ko ba tax seen dara bu baax a baax matal di guubu def lu ne rek mun a ñu mun a ñu naan ko jaloo tax tey bu ñuy jàng risaala fa may waman kaan xaalifan falyahlis billahi aw liyasmut muy nit buy giñ ne giñ ci yàlla te noppi bale ca namrawi foo kiwu dawa bi namrawi dana wax mu ne booy jàng alquran da nga gis muy gis ji lu mooy yàlla ay wa samsi wa layli wa samaai wa duha wal adiyaati wal asri mu ne waaye loolu yow xamoo ci wax sama borom moom moom yëpp waaw lu ko neex mu gis waaw yow lii sa wàll mooy nga yem fi ñu la yem waaye noo waroon na moo doxalee jalam moom yow doo ci wala mi nam la yu wax na ko man na yàlla daal day jàmm di ne moom dafa am fu mu mën a yem daal dana jëli baax de dana jëli baax de dana jëli baax de waaw dana jëli baax de léegi nag wax na bu yuuti la bay ni mu balaa xaaree da ngaa ni mu ni mu mel rek loolu baax la jabara jangeen a di xarame yi xat ak wàccu waayam bi taw si ati dara yi ci yaatal xelam yaatal xelam mu ne néeg si tuuti na waaye yaatal damma yaatal tax na yëgatuma xatte faral la fàtte ma ni mu xatte loo ma fil xiraa ji nga na le mu ne ah man gan moom jëla ko neex yaay wax ma jox la muy wa ma xay fi ma ak wéy tey laa lay sara def ko def na ko jàll mu ne ay wax loolu abu zeyni ne ko xoltu ma ne ko rasuli danaa na ma azharaki min gën kay rafeti aji ma ala ashal malkuut ci gën kay neexi lu ñu ma ñaari yooyu nga xam ne booy booy lekk dañuy boole benn bi gën a rafet lu ne benn bi gën a neex lu ne boo leen tegalee bii ba rek suuf mu gën a neex lu ne ba pare kaw mu gën a rafet lu ne la ko duwaan fan sahibin ak gën jaay jëriñ yi àndandoo ma agarri masruf ànd ak gën jaay lori lu ñuy ànd eh, ñaari yoo xam ne sax benn bi baax na ba ñëw dugg baaxal waaye benn bi danse na ba ñëw gudd sax mën na cee indi sax ñaari laa mën na boole li daal la ko wax fa askara mu xalam saatan waxtu tëbila tan mu daa jam xam nga fokk dana seet nu mu ko nappee ndax mu gëm lim ne ko li nga laaj xam-xam moo tax buur rek dafa nangul la loolu mu seet nu mu ko nappee te bu dee pour ne waa ji gëm ne li mu ko laaj xam na ko ne mu xalaat bu yàgg su ma topp mu ne ma laallaka xëy na yow tax ni da nga jublu bint nuxaylatin doomi a sandarma maa li ba i soxaylatin ànd ak tekk mburtu yow jombul daal li nga man ci sandarma ak tekk laa xam abu seyd ne ma ne ko tigi tigi tigi ma ne ko tigi tigi yaa ko xam laal la ne xëy na sax ni da nga jur bint nuxaylatin doomi asadarba maa di bay suxaylatin ànd ak seen kër murtu abo seen ne ma xullu ma ne yow doom na daal maa naytu la jib wali ay lii maa ngir ñoom ñaar sax naytu la sol ñu jàng la mu kii yaa ko xam kat baax na ko waaye ba ñuy mujj de waaye ba ñuy mujj de léegi da koo laaj loo bëgg mu ne ko moom daal euh, moom daal kii liñ ko waxee daf bëgg mu ne ko asa rakim ala asa marku wa ma sahib ma adarre masu jël hmm. mu xalaat ba ca kanam mu ne ko ah jombul sa sanga eh, tàndarma ak tekk nga bëgg mu ne ma ne ko mu ne fannahaada mu buur na fii tan daa ji sawar mu buur jóg ne ma xam nga ko de su marabada su marabada topp mu gora mu ta fii tan daa ji tàkk mer xam naa dafa dem ba buur ragal dugg ci lu mu xamul dellu àggaat suuf nag boose ak kulle ba <laughs> ma wax dama buur rek mel ni xam naa ko ba pare waaye moom dañoo fa taxaw dama delloo àgga suuf mel ni daal dafay bañ dugg ci lu mu xamul mu ne ma yaalam xamal aslahaka yàlla na xéwénal la allahu yàlla xamal bu baax damay maslaha ak yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñun yëpp xamal bu baax ne am na sëqa dëgg daal ak dëggu daal na baax na yëkkati bu dara dama ba nga foog ne fara laa lore pour la jëli wal kadiba fen ah dum gàkk nga xam bu baax it ne fen sikk dëgg la fala yaxmila fala yaxmilan naka bu la hen al jomo xiif alladi xiif mi nga xam ne huwa moom chiarul ambiya mooy lamayu ambiya yi wa xilyatul awliya tey takayal waliyu yi ala ansar xaqa ci bu nga héegal bi man ci ko xam ne maana fen na wa tataxallaqa ngay jikkoo bil xuluqi ci jikko alladi yu xam ne jaani bu dana mu bañanteer alimaana gëm yàlla gis nga xiif rek jarul ci jullit muy jikkoo jikko bu limaan te bañ ndax ñoo baax ñi moom lañ dëkki ambiya yi ak awliya yi ak bu ñu ngi xiif xiif mu la taw xalu du dëgg ndax benn jikko la bu déggoo ak imaan gannaaw ayatul munafiqi ñett la mandarga yi ñuy xamee nafiq ku jaam dara rek mos na ci dara ku leen boole ba wut ci dara ida haddasa kasaba wa waada axlafa wa ida tumina xaan fala yaxmilannaka bu la xelte aljomo xiif alladi xiif nga xam ne huwa moom chiaaru lambiya mooy lambayu lambiya yi wa hilyatul awliya day takkaayal wali yi alaan talaqa ci bu nga man ci ku xam ne maana fen na wa tataxallaqa ngay jikoo bil xuluqi ci jikoo alladi joo xam ne jaalibu dana mu bañanteet alimaana joo yàlla bu ko nangu de faqat joo danay xiif alburatu ngoob su jigéen wala takulu te du lekkee bisa dee yaa ji ñaari weer gis nga ngoob su jigéen xiif du ko tax a nampalaale ñii ko fay nit moom xam na yoo xam ne waru koo tax a fàtte kim doon xam na yoo xam ne waru koo tax def lu jagul ci moom wata baatana bañ moom ngor su jigéen a yata caaxaan wala wu tura doonte loolu lor na ko ila yaa jëm su ma inni topp man la su deen man bi sa boorin may kiliyaan mooy kuy jëflante yow may jëflante la kañ yàlla man duuma sa kiliyaan pour man am na lu ma xaar naa muñ li ma def tey am na lu ma amoon ci naa muñ li ma def tey loolu jaaragu diggante de sa boon mooy kiliyaan ki nga yàgg jëflante ah nit bu ngeen di jëflante dëkk di jëflante bis dana ñëw nga loroo ci ba dëgg ci njëriñ loo jiitu woon mën a muñ lor ga mu oyof ci yow wala dëgg ci njëriñ looy xaar ci moom mën a muñ lor ga mu oyof ci yow gannaaw yàgg ngeen jëflante mu ne ko mayow la loolu boole wuñu sa bon mooy client ki nga yàgg jëflante su ma indi topp man la su dee man bi sa bonin may la ka ñaal man joxuma yow dara wala oxte du ma du ma yoo nag xalaa safxati max boonin ci tàccu ku ñu na jëfandikoo yëf yi turiya ah, lekk sama yëf ci caaxaan may métti te ko naan liñ ma def loolu man duma ko la koy bay duma ko la koy bay waxaa yëgal ne ana man xadaan sattuka waat naa la xablan yéen xatika jekk bu xottee bu xat asitru kiiday wayen xaqida ak bu xosuwaat alwitru bañeel bi ma bañ na ci suñu léegi nag man wax naa li xam ne bu guddee yaa gudda waaw parce xam de waaw bu tasaaroo yaa ko waaye yëgal ne ana man taral dootu ka waat naa la de xaw ka njëkk bu xotte quoi atidu kiidaay wayaan xaqida ak bu fas al witru bañeel bi ma bay naa ci seen diggante fala tadabbural inzaar settantal waate wi wa hadaari wattandekul minal mukaadabati ci fen hadaari wattandekul li ma la wax boo ko dégg far naar lu ni ko sa nopp bi déggee na ko sa xel bi jàppee noonu te nag bu la dara jaral sax li la ma wax de Abu Zayd ne fa qultu ma wax la woo ñaar ko ma ne ko walla si giñ naa ci buur bi xarama xaramal na mu akala riba lekk riba wa axalla tem daganal akala liba lekk teeg man maa footu tudduma bisoo lim ci ne mu ne ko suma diggante gi Yàlla ci laa dee waxee ak yow loo dagan sax laa la laaj laaj ma la goyara li ma la wax dëgg la de wala da lay tuka tegtaluma la yoxono leen ci naxe man duma ku lay nax wasa tax buru xel si ngay xam xaqiqatal am ni dëgg-dëgg mbir te mbir mi ci kanam la nekk wa tax ma du danga sant bas la liba yi joxe tig wa tambe ak tàndarma boo wóoloo defal doo ko réccu laa ko wax xasa mu bég waa di kontaan xasaasatal masdooq tegam ku ñu dëggal ci waxtaan mu kontaan gëm na li ma ko wax wantalaqa mu bayu muxidan te aji gaaw ila suuqi jëm ca jaba mu ngay ñàkk rek te daw jëm ca marché kama kaana nekkul bi asraa di gën a gaaw mi naan aqbala ci mu jublu si at bihi maa ci tàndal ma yàgg la ko mu ngi dox bu diis wajoo te telmaayam yàgg la ko mu siin mën a tax bi ngir sol mooy diir bu gàtt mu dal di ñëw ma jeg tekki mu ngi dox dox yi ko sonn la ngi siin ndax marché ba dafa sori te dafa daw lépp waaw ba kaana nekkul bi asraa di gën a gaaw mi naan ak bala mu jublu seet ci ma ak ma jeg tekki yadda laxu mbiram dana dox dox bu diis wajhu xar kanamam yàkk laxu dana mu siiñ mina taabi ngir sonn wadaawu maam mu teg tàndarma ji tekki la dayee fi man mu jël dal di ko sama kanam walaan moom tanni teg aji ñaaxan la yee man mel ni kuma wan ne ma xam nga xewal wadaawu maam mu teg tàndarma ji ak tekki ji la dayee fi man waraan moom tënni tegaay ci ñaax la day wa qaala mu ne ma idrik dóoral aljaysa ba ñu kaw yi ci ba ñuy suufi xam niñ rangee jàkkaar la dafa mel ni ñaari sax koy xare loolu ay war na gaa daje idrik dóoral aljaysa ba ñuy kaw ci ba ay war na gaa daje tax da da nga xejjoo bi la datin ay si ci bànneexu dund léegi mu neex Abu Zaydin ne fa hasartu ma wax an zaahidin nahabi qasabu an zaahidin nahibi qasabu aji fukk mu ne suma loxo bi nag xaw nga loxo bi yaa ko moom rek jarul lekkin woon ñëw ah jarul ko yaa ko moom noo ko mën a lekkee yaa ko moom même giiroo sax boo giiree ba xam li nga xam jarul lekkee nu ñëw yaa ko moom mu ne waaye wa demee ma man dama bëgg a wax suma loxo bi wa xamaltu ma songa ma songa affaire bi nag xam la talfiiri kem songa ñëy al multahim bu daa ji lekk nekk isbe ma ma xamul si gi de mel ñëwi lekk noonu laa ko defee rek booba te moom yàlla xaatu ni mu ngi may rob kama yàlla xaatu ni kii rogee alxane waa ji mer mooy waa ma mere ba nga xam ne ci lekk mu ñaawi kii wala kii dafa ko loxom ah, yaa ah, ma def wéy waltu mu ngi ngéeju mel xëy di ngir la waxta ne xas sama pot di ngeen sax daaye pot rek mu set kii da waroon pot rek mu ne ma dama wokk suma loxo bere sol na xam nga si gir ko ba di ngeen sax daaye ni ñaare xeeri ba ma lekkee lépp ba mu jeex waxaatarahuma ma bàyyi leen asaran ñuy jeexit ma daa leen ci gannaaw jëm bi ma lekkee leen ba mu jeex axartu noppi naa dama def taras noonu xayratan ngir gëlëm bi iflaalil bayaati caafsik fanaanal wa fikratan ak xalam fi jawaabil awaati ci tontu wuy laaj bi xam naa ko ay wéy lañ ko laajee dama koy settantal wéy ku muy itam may settantal loolu ak itam man dëkkuma fi xama fi kenn te guddi na xamu fu fanaan ñaari yëf yooyu ñoo ne ci sama xel waaye fa ma la bisa saxu daal moom góor gi am xamal lu may mu jóg wa aftara mu teewal addawaata daaji wal aqlaama ak xalima yi mu ne ba may jóg fekk na mu andi daaji ak xalima yi waqala mu ne ma ay waqan mala te feesal nga aljiraaba gafaka duy nga sa mbaq gi ba mu fees hmm. fa am li fiteel aljawaaba tontu li waxal tontu li xan mala te feesal nga aljiraaba sa gafaka hmm. fa am li fiteel aljawaaba tontu li hmm. wa illaa boo bitewu tontu li wala soo tontuwul fa taaya waajal in na kalta boo ragale lextiraam maa ngir fay li nga xam ne ak kalta lekk wala soo xamul tontu bi dooy posé te fayoon te fayu la ma li ma def ci lekk ci ren danga ma koy fay aboo dee ne bu xultuma wax la wala ñaan ko ma ne ko maa ngi indi nekkul fi ma ila taqi mbare dëggal xanaa xam-xam su jee wax dara war ngaa seet noo koy waxee man duma ko lay nag loolu laa ko wax ma ne ko tekki jigéen xam-xam su jee wax dara war ngaa seet noo koy waxee loolu rek la maa ngi indi nekkul fi ma ila taqi mbare dëggal fakk tuub bindal al jawaaba tatuli wa billah nekk nañ sama war a tawfiq dëppale tontu bi léegi man daan la ko waxal léegi sax mooy lii di ñëw maanaam ni mu demee miraas bi dëgg-dëgg ni mu demee ak góor la gu fi nekk doomi góor ni ki sañet nekk fekk doomam ak jigéen ju nekk fële ak doomi jigéenam ni ki hind nekk beeg doomam di daan xam nga ni ma la ko waxee léegi nag góor gu mag di saña moo dam takk dana du ndaw jigéen joo ndaw ja seetlu góor gu mag di saña moo dem takk dana du jigéen joo ndaw ja seetlu wala góor gu ndaw gi dema mat moo takk yéen du gorob bayam bi denc gorob bay sëriñ xaaral ñun dañ ko xamul rek waaye aywa xam nga su a baax waaye dama dem takk yaayi jabari bàyyam bi la takk goro bàyyam bi la takk muy hind dégg nga moom Omar mu ndaw bi moo takk hind jigéen ju mag ji ñu dem ba am doom doom joojule sëtëb sañaat la ndax sañaat a jur bàyyam seetlu ko la waaye bokkam daandu la ndax mu daandu ñoo bokk benn day doon te bokkuñ bay xam nga ni ma la ko waxee léegi nag moom Omar mii góor gu ndaw gi dafa jàkka baatu bàyyam xam nga ni ma bi mu jàkka baatu bàyyam nag bañ ne ba ca faatu doomi Omar ji nga xam ne moom jabari sanet di ñoo bokk benn ndey sët la ci sanet doomi doom nag bu fi nee jabar sumun lay doon suba moom dana du mii jabari sanet ji sumun lay doon su boobaa nag ki bi nekk da doomi Omar ji da doomi Hindu ju ndaw mooy doon li fi science bayi science ku bokk moom ndey bayi a xam ku bokk moom bayi a xam doomi doom bi bu góor bi nekkee doom bu doom seetlu bu baax wa seetlu nga affaire bu baax léegi góor gu mag la muy science ak doomam muy Omar ak jigéen ju mag muy Hind ak doomam muy Kaw moom saxeet góor goo mag gile moo takk jigéen ju ndaw jëlee da dama su ko defee jigéen joo mag ji dem moom xamar góor goo ndaw gi moo takk hind mii la góoroo bàyyam seetlu nga baax a baax ñu dem doom ñoom ñaar doomi xamar jooj li sët la ci saxeet mi de seetlu la ko baax a baax waaye doomi xamar jooj li mook Dawdu bi ñoo bokk ndey kon bokkam Dawdu la ñu dem dem ba ca kanam xamar njëkk a baatu bàyyam seetlu bu baax a baax suñ demee ba léegi kanam sañet faatu bàyyi bi jabaram ji ak doomi Omar ji bokk ak jabaram ji de sëtam moom dañoo gis ne ku bàyyi doomi doom bàyyi nga doom subaa jabar ji su mun lay doon li des sët bu góor bi moo koy doon rek mu jeex seetlu bu baax a ma ne ko xul waxal li man ñaal koo xam ne yul xisu dana mu jame almasaila masala yi kooku di jamee li nga wax ne laaj nga ko nit ñi xamuñ ko ne ko inni man kasifun aji wuññi laa sirraha bootam masala yi alladi mboot mi nga xam ne tux bii danañu ko nëbb ñoom masala yi wax ne laaj nga ko nit ñi xamuñu ko xaaral man ma leeralal la innatal mayita naka bile naw kile jile aji de alladi ji nga xam ne xaddama jiital na asaron yoon sëriyan axaa xirtihi mbokkam jabaram xalal ne abihi ci doomi bàyyam kii nii dee ñu ne mbokkam jabaram a koy doon waaye mbokkam boppam moom du ko doon rajulun asos góor la te mooy sañet sawaje gug sayloona ibnahu doomam mooy xomar xan ridaabu ci ngërëmam bi xamaatin cib goro la wañaal ko te mooy hind mi yaayi jabaram sañet mooy jëkkëri dandu hind mooy yaayi dandu Omar mooy doomi Zayd léegi nag moom Zayd nag moo topp dool Omar doom ji Hind mi nga xam ne mooy yaayu jabar wala xarwa te di kéemaan bi yéede ca nekk te nag sëriñ bañu ko su ma maata topp dee ibnu hoo doomi góor te mooy Omar waqar hande xatte goro ba aju na minu ci moom fajaar mu dikkee dum nin ci doom yesuru jooy dana bégloo sa wi yi ñoñam te ba waccoon naa xam ak Hind moomu doom su ma maata topp de ibnu hoo doomam muy Omar de waqar hanle xatte haju na moom goro moom hind min wu tukkee ji Omar ba jaar mu dikkee bi nin ci doom yoo xam ne suru dana mu bégloo sa wiyee ñooñam fu woo kooku noonu hind jur ibnu ibni yi doomi doomi góor gi la sa tam sanget la bi xëyri miraaj ci lu dul sanget da jur bàyyam waaxoo xeet yi mbokkam jabaram la ndax ñoo bokk benn ndey bila tam wi ci lu naka wam nu lim ni te doomi doom nag asari hujuraaji wóor addana moo gën a jege ila jëddi jëm ci maam waaw laa te moo gën a xeyoo birti yi ci na maam mi ndax yi ci bokka moom doomi doom nag du fi nekk de góor bokk di doon wali taa ngir nii xiina maata bi mu dee moom góor gi di sañ bi mu dee oji ba waral lees li saw jëtti ñaar jabaram ji dandu sumunu traje sumunu dono te taw bi nga na ko mat la ñu ko yow nag dana du sumun ngay mën a am waxawaa da ibnu yi doomi doomam te mooy doomi hind jama war ju da di làq àll bi ki nga la bi àll ci cosaan te mook jabari góor la def minu mea ci ibnu yi doomi doomi góor alladi ki nga xam ne moom fi laata si cosaan ak waa bokkam jabari góor gi la min ummiha ci yaay jabar ji baaqi yi la def wa taxalla fi alaqa mbokk ma saqiqu ma de xarit ko dee mbokk ma ca ndey a lu nga ci am waxul naa ñu wax loo ne ko ay waxul naa ñu ne ko yow daal yegg fii ka dana la doy antal kii ba nga joxe kii daa mën nga haa ka jàppal al buriyahu bee aka jàppal min nii ci man alfuriya hubbee allati bi nga xam ne yaxtadiha dana goroy kullu qaadin bépp qaadi yaxtadi bu dana mu àtte wa kullu faqiir bépp bana xam fexe njàng la mu ne ko lii daal xudaatu dan yëpp loolu la ñuy àtte fuqaaw naa si yëpp li mooy seen fatwa baax na ko ba ma reeree ba soo du wéy dama daal koo saxlu minu ci am asawaabu njub na ko seetal li ma tontu ba xam-xam ne yoonam déet xaw na yoonam déet xaala wax na lii ñu xaal ma dem ne ma ala ka dabil sa ñooñ wallay la ak guddi gi daf ne gaaw a mu ne ba mu seetee wuyu ba àgga affaire baax na am baaxul daf ne ma gaaw a dem dëkk balaa gën guddi fa samir na nga wax asayla lafit wa ba te nga jëkkalaan def aseere yolle wi xam soo yeboo nga daw ndax bal saw te gawa teelu balaa gën a guddi soo yeboo nga daw nag ndax su yéexee daw nga de mooy loolu la mu wax abu zeydin ne fa qultu ma ne ko inni man bi daari xurbati maa ngi ci kër tumaranke wa fi iwa te nekk ci sama tàpp mooy sama dalal afdal qurbatin gën ci jaamu yàlla ma ko man nag dox baal si silaare dëkkuma bi ibnu sabil la dalal ma jaamu yàlla bu matamat la la siyama rawatina sax waqataa dafa ñuul na junhu salaame mbaggam la ndëm gi wa sabaha te sabal xaran du dënn bil xamam ci niir yi sa kantamaa bi ne muy guddi tem këñ de fa qaala mu ne ma oxol tumarankel xaafaak yàlla na jàmmal allahu yàlla illaa haytu siita bopp la neex wala tan maate bul xamen fi anta biita ci bu nga fanaana fii mu ne ma soxeboon nga bàyyi ko ca pegg àddina sa waaye fii du koy fan soxeboon nga tudd fu gën a sori ne fala bàyyi ko waaye fii dooy fanaan de oxol tumarankel xaafaak yàlla na jàmmal allahu yàlla maslaa la ci wax ilaahay bu siita ba neex wala seulement te bul xamee fi anta bi da ci bu nga fanaan fii bu nga Abu Zayd ne ko xultu ma ko wali ma ngir lan la saaka loolu maa xulu bi dara ka ànd ak fii xal sa dingri ko lu nga du ma fanaan xanaa du kër goo bëri nit kër gu kenn ko naa du xam kër nga du ma fa qaala mu ne ma li am ni ngir naka man ahamtu jaaxal naa an nazara xool ci iltiqaamika ci sag lekk maa hadara li teew hatta lam tubqi ba desaloo ci dara walam tadar te baxula ci dara mu ne ko dama la jiit bi ma la indilee lekk toog de seet ni ngaa def da ko lekk ba mu ne foofu jàppoo wala ci dara dara dara dara. Faraayitu kam ma gis la laa den ngay seet. fi maslahatika ci sa masla. wala turaan den ngay sàmmante li sa sihatika wattu sa wér gi yaram. yow lekkin mi ñaaw bi mu doon lekkee. kuy bàyyi xel wér gi yaramam du ko def. te itam lii nii loo moom man maa ko sonne defoon ci lu xam ne rafet na sama diggante yow ay yow dama ko di jox la wër mosuma nga desal ci dara mos ko baax na wala nga desal ci dara ma wóolu baax na mais masaal yi yëpp defuloo nit bu la joxee ñam boo ci desalee dara nit la bu ci amul soxla moom dana ci wóoloo ne lim la jox doy na la seetlu bu baax a baax yëpp demoo ci nag yëpp demoo ci nag comme yow duule ni tuumaat la buggoo sa bopp jaroo dimbali leen ni ngir na ka man aham su jaaxal naa fil te xaami ka ci sag lekk maa xadara li teew xataa lam tubqi ba desaloo ci dara walam tadar bahula ci dara faraayitu ka ma gis la laa tanzuru déet ngay seet fii maslaati ci sa masla xam ne addina moom ëllëg dañ koy sédd wala turan yi déet ngay sàmmante xib da siyaati ka wattu sebe waman amaana ku bëri nga mu fii maa ci li nga nga ko wa tabatana te mu biro maa li nga xam ne tabatanta biro nga ko lam yekkat du jegeñ yaxlu su te mucc min kisatin ci për mooy fiiw mut ni fatin gudaay ci soŋoŋ lo aw haydatin walla métitu biir mut li fatin gudaay ci halak yow li nga doon lekk muy tàndarma tik ñam la bu xam ne kuy wattu wér bi yaramam lu tuut la ji lekk waaye lekk bu xiir bi nga ci lekk ku koy man na ko indil de dana bu baax lekk bu xiir bi yow lekk bu xiir bi nga ci lekk ah bu la dara bu dara xewee ci yow ci sa réew fii maa ci li nga ne wante bëril nga ko wa tabatana te mu biiroo maa li nga ne tabatanta biiroo nga ko lam yekkat du mu jege yax lu su min kifatin cik faru mudnifatin gudaaji sobam la aw haydatin walla méttitu biir mudlifatin gudaaji halal fa dani bàyyi kafaafan ci fegu waxru génnal an ni maadum te fir sanga muhaafan de ku ñu jàmmal walla di giñ ci buur bi nga xam yu yi dana mu dekkal wa yu muy dana mu rey maa la ka la hen si man ma biitum fanaan waay mu ne ko gannaaw dara jotagul la gaaw la gaaw ma lay defee kii yow li ma lay mooy fii du koy fanaan gaaw la gaaw def dégg nga Abu Zayd ne falammaa sami'tu ba ma dé ba ma ba ma déggee nag aliyatahu ngiñam ba mu waxee ba giñ nag xam naa dogu na ci lépp dogu na ci lépp wa balawtu tema nattu baliyatahu dëgg dëggu mbiram bal ya arab yi ñu ko daan def mu ngi bokk ci seen yi lislam di bañ dañ daan def bu ni dee buñ ko suulee ba pare dañuy jël benn gëlëm daj ko ci pegg bàmmeel bi yow ko fi ba mu dënër buñ ko nàndale buñ ko joxaate nekk mu taxaw ba dee ci pegg bàmmeel bi ñun suñ kër gi jotee buñ dekkale waa ji dekkal gilem bi mu mën a war ci gilem bi dem arabe léegi mooy mooy bëliya loolu mooy bëliya ci cosaan xam ki nga gis <laughs> bëliya dem nga ba xam gannaaw dund ba xam gannaaw dund am nga wa balaaru tema nattu bëliya te wa dëgg-dëggu mbiram ba ma xamee ne mu wax dogu na ci nag xarajtu ma génn min bayti ci néegam bi ruux mi ànd ak ma xam ne boot ma génn rek wa tazawwadil xammi ak yóbbuloo njàqare ak jaaxle lool rek te joodu nii dana ma tawal asamaan wa asamaan maa ngi tawte wa tahbitu dana dajitu biya ak man abal maa wu lëndëm gi gisuma fenn fu may xaw damay lambutu watam ba wu nii dana baw alkilaabu dawkat yi fu ma aw dawkat yi baw wata taqaadafu dana sànneeku biye ak man alawaabu bunt ku ma dégg gaw korate buntam hatta saaxani ba man nga ma luttul qadaa ñëwata dogal ba sukran dana ma sant ak ilaa tasaasan yu maa ngi may lay jël ci yow utul xatal ñëwee ko dogal fa subran dana ma sant ak sant lii ñaan loxol dogal ala al bayda bu daa ji yaa nekkul bayda mu xew ba dogal yàlla indi ma ci yow xaaral ne ko xultu ma wax la wa ñaal ba ma ne ko ahli yéemu na sopp bi leqaayi ko ci dajeeg yow almutaax ba de bu ñu dogal ila qalbi ila qalbi jëm ci sama xol al murtah bu daa ji ma la nim si woon dajee gi ma dajee yow ak ni ma toll ee mu xaraf nag yëftannu di fànnu fi hikayati yi ci nettalim mu door nag waxtaan nag de nettali nag ni mu bëree lum xam diggante lim jàng lim gisal lim dégg ak nim bëree lum xam waaw baax a baax li mu xamee ci dox ak li mu xamee ci téere li mu xamee ci waxtaan ak nit ñi li mu bëree li mu xam na wayus mitu muy jaxase musikaati yi nett lim yu reelu yu kiyaati yi ci nett lim yu jooylu léeg-léeg mu nett lu reelu waaye léeg-léeg mu nett lu daw yaram loo xam ne doo mën a ñàkk a jooylu ci loolu lañ nekk ilaa nakasa ba tisooli am fu sabaa ba kanu suubu ba set waate a wate daaxil falaax aji wate texe ba tax dëkkatu asalaatu xayru mina nawm bi nodd fa tarhabu mu waaj li ijaabati daaxil ngir xëji aji wate ji mu waaj pour dem jàkka ji julli ji su maata ba topp mu jeng ila wadaaye jëm ci tàggu ma mu ne kon baax na man bu mu jullee noonu lay jaare xaalis ne foxtu ma gàllankoor ko anil imtihaas yi walis buur ma ne ko di yow ma ne ko laa wa xultu ma ne ko addiyaafatu ngan salaasun ñetti fan ngan ñetti fan waaye du ko ne la ñoo teye ah du ko ne la ñoo teye moom sebe bu baax waa dama daan ko xam ne dama dem ñoom muy génn ma ning ma ay doktor ma wala mu ne ma waxtu ma gàllankoor ko xane ci mbihaa di wëlil buur waxultu ma ne ko addiyaamu su ngan salaatum ñetti fan la fan naa sada mu giñ ci yàlla ne man la mu waxoon lay def de wéy saa ashara qaddama sayra loolu lay def de waxarraje mu xatal mu ngi indil benn masla man li mu wax lay def su ma am ma topp mu jublu al maxraje génnuwaay ba jëmali bunt ba waam sada mu dal di sadd isan raje ba mu jéngee ba mu demee ba génn nag mu wéyal ma wéy yi ne la tazur man tuhibbu fi kulli shahrin xayra yawmin wala tazidu alayhi فاجتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه la tazur ba te nemmeeku man koo xam ne tuhibbu da nga ko sopp fi kulli sarin ci wépp weer axeera yawmin du muy benn mu ne xarit daal koo ko amee weer wu ne boo ko gane nga benn fan doy wala turidu bal ko dolli na alayhi ca ban ba ca dolli dara facci laawul hilaali seenu terute ci sori ci weer yow mun benn fan la summa la tamburu topp du xoolati am na yoonu bëri ilay jëm ci moom waaye daal guddi gi muy njëkk a fekk di ko wee wala sax mu gën rëy gën nga yàgg rek kenn du ko gën gannaaw wala sax mu gën rëy gën nga yàgg kenn du ko gën moom moom ba mu mujj de wàññeeku ba mu mujj de yàgg weer di kaate buy ko séddoonate benn pari noonu la waaye nit ki boo gënee dee tey mu daane xar bi ñibbi wu la bu ëllëgee mu dem ci gànnaar gannaaw a léegi jëm la jëm te loolu mbaa mu bàyyi la lu dem jiite ci law ila di teru terute su seeri ci weer yow mun benn fan la su ma la tanturu topp du xool ala yoonu bëri lay jëm qaala al Haaris ibnu Hammaam Haaris nee na fa wa dantoo ma tàggoo ko bi qalbin ci xol daa min qurhi mu daal di nàcc ci ma tàggu ba te boo sama xol mu ngi métti lu tàggaloo ma ngi ji law an na laylati allan doon sama guddi ba ci atu suba ji yéex ci suba la ba su doon sama soog a bët dana gën a yéex